li ci yenn kaay yi ak Alaaji Assane Gueye ban banlieue le président Sall demoon démb dib laaj bu mën a jib ci ki xëy jàng tey observateur ndax yenn kaay bu groupe Futur Média dafa jàpp ne banlieue bi dëgg di Pikine yëmbal Géejawaay Caaxoy président Sall dëggu fa tànkam observateur ne njiitu réew mi daf leen a fënatal dëgg demb doxantu boori lak ba ñibbi yenn kaay bi ne am na nag ak torox tànge gu mu rëcc ndax fenn fi am na ci askan wi ñu ko fa doon xaar ak yuuxoo ndax ñàkk a bëgg ci liggéeyam waral président premier ministre am Abdoul Mbaye moytu ne jaan yooyu yooyu bërëb teg ci ànd ak i takk der yu takku ngànnaayu mel nañu nekkoon ci xare président moom xare ba mu jàpp na ci la ne mooy xare bi diggam ak waa Amérique di inondation yi ndax nee na boobee xare door nañu ko ci observateur ba tey président ne saafara ci lu sax la bëgg waaye du ay taf yëngal mu ne ba mu fi wax programme mu juróom benn téeméer jàpp juróom-ñaar téeméeri milliards ci diirab fukki at am na ñu bari ñu jàppoon ne politique dong la waaye mu ne la mu gis tey ci travaux ak tan gi mu indi dig digalu foire ba Grand Yoff dali fort jàpp lag ba ak it ba ci Touba Bambey diwaan yeneen yu Sénégal fonds d'urgence 66 milliards yi mu ngi doxal président Macky Sall nag leneen lu mu rafetlu di programme bi ñeel dëkkuwaay ci Tivaouane Peulh ak ñàgg ñaari junniy dëkkuwaay tabax yi jur fukk ak ñaar ci junniy xëy di kër yi fukk ak benn million waaye ñenn koy baaxee ñetti million genn wàll rek lay doon di bor boo xamante ni dañu koy tàllal di fay ndànk-ndànk diirëb fukki at wàllu tabax mi nag président Sall Walfadjri ne war nag meram waa SICAP ak SNHLM sàkku na ci ñoom ñuy tabax tabax yu néew doole yi mën a jote wala rek ñu ne leen fi ñukk dem ca privé sall gi démb fu ci mel ca Grand Yoff du woon safab meeting politique waaye ci yéenekaay bi Babacar Mbaye Ngaraaf mu ngi ko cay xelal moom président naan ko na moytu dem fi nu koy tàccoo rek ndax bu boobaa du gis li mu a gis mbaa mu dégg li mu a dégg ci la Soleil président Macky Sall moom taxaw fa mu taxaw rek ndax mu ne solution di saafara ci yu sax lay indil askan wi kër yu nuy toxale ñenn ñi mu mën a jar ñetti millions ak genn wàll chantier yu jur fukk ak ñaari junni ci xëy coowal tegg gi mu tegg nag yenn ci bërëb président Sall ci Le Soleil ne bu nu yàkkamti dina yegsi ci koy xaar di lu mën a tukkee ci daara yu kaw yi ak yokkum njëgum mbind mi ci université yi direct info xëy njort ak càll mbeerug ñaxtu guy jibee ci yooyu daara yu kawe Karim Wade ana ci lu mu ne ci kaso bi observateur xëy dinu ko wax xanaay dénkaane ci ñenn ñu ko fa seeti woon ñu mel ni Serigne Mbacke Ndiaye Modou Diagne Fada naka noonu ma nga naan moom Karim Wade téye nanu ko de waaye bu nu ko rayoon sax mu am mbégte te nag amul kenn ku mën a indi mu ne firnde ci ne lekk na dërëmu askan wi aw xeexin ay avocat am jokkoonoon ak cour suprême ngir ñu jàppee ëttu àtte bi di CREI ëtt bu dëppoowul ak yoon bu amul sañ-sañu àtte seen client Karim Wade bàyyi jë moom Karim Abdoulaye Wade ci xët mu njëkk bu libération ak bataaxal bi mu yónnee président Macky Sall ma ko ci naan na moytu marxiste trotskiste yi ngir bañ a def njumte genn gi Houphouët-Boigny yi defoon sàkku na ci président Sall mu jëlaat ñenn ci ay ministre am yu am yéene boolewaat njabootug libéral gi Sud Quotidien xëyee këru courant gi di Senelec ak marché gré à gré bi ci njiit la Pape Dieng def diggam ak Africa Énergie contrat bu ñeel centrale charbon 300 ca Mboro ñetti di ca dem njiital Senelec ci yéenekaay bi ne foofee nag la njëriñu askan wi nekk waral marché bi ndax lépp bu yembee kilowatt bi fukki dërëm ak ñett ak benn fisin lay dikkee Sénégalais bi Leyti Fall comédien moom junneeg ñatt téeméer la dooreb lu yaas ak soxnaam néeg bu xat mu ne benn lal benn komoot ba tey ji yàlla ñëw ñu jóg ko daanu di mu dénk waa populaire gi mu xëy tey doon seen gan moom njaboot gi lu dugg bu baax Sénégal Leyti Fall ak soxnaam dund ci muñ ba yàlla ñëw di lu safaanoo kuubal beneen soxna suñ naan Awa Danfaxa ak Mohamed Ndaw ca Tamba observateur xëy soxna si ca l'hôpital ak jaas yu ko borom këram dóor jamat fu ne ba mu nekkoon ci diggante dund ak dee soxna si nettali nag séyam ak fitna bu mu ci dëkkee guddeeg bëccëg waaye nag fa yëf ya jéggee dayo dëgg mooy fu mu toggee guddi doom ja sex ween wa jëkkër ja bett kooki jaas jamat ko ko fu ne njabootam jàpp ne borom kër ga la mu diggee woon rek la def ndax dadaa faral di wax ne day sa fileeg rayu ko duma am jàmm cong gi nag metti woon ndax observateur nee na soxna si jëlee na ca tànk bu damm baram bu dog kanam gu yàqu yàqet ci jaas yooyu ñu ko gor